kër Diallo maa ngi tudd Babacar Diallo euh, responsable APR Thiès Ouest représenté wu fii le DG de la poste monsieur Pape Siré Dia nekk fii ci Grand Thiès. waaw merci boo ma ci laajee dinaa ci mën a tontu. ndax tey jii gox bi nga xam ni moom mooy fii ci Thiès Ouest nekk fii ci Grand Thiès man la DG sira ja teg ma fi ma représenté wu fii ñi nga xam ni tey jii ñoo ko fi nekkal di fi liggéey ma teewal ko fi toogal ko fi looloo waral tax tey motivation bi nga xam ni ma di ko ñaaxaat ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk fii ma ànd ko xale yi nga xam ni ñoom laay liggéeyal ndool muy xale yu am jom ànd ak man te tekkantewu ñu ma benn yoon di am liggéey fii liggéey bu am solo di fi wane it lu am solo ci turu ki nga xam ni mooy DG Siré Dia waaw waaw Siré Dia yaakaar naa ni tey jii tout Thiès waxuma sax Thiès mais tout Sénégal dégg nañu turam xam nañu kan mooy Siré Dia ndax tey jii soo xoolee Siré Dia euh, ay mbébétam ci Sénégal président Macky Sall moo ko njëkk a ñëw jël ko takkal ko ndombo tànk dugal ko mu nekk DG de la poste ci loolu la sukkandiku it jël ci fi nga xam ni mooy Thiès rawatina ci région de Thiès rawatina ñi mu xam ak ñi mu xamul jël leen dugal leen poste man mii ci laa bokk ñi ma àndal ci lañu bokk looloo tax ñu am tey ji sañ-sañ nekkal ko fi di ko fi liggéeyal ba indi turam yóbbu ko foo xam ni moom sax foogewu ko woon ba tey ji ñu am mbégte di ko defal li nga xam ni moom lañ koy defal fii ci Grand Thiès looloo waral nga gis fi ñu ngi fi gis ñëpp. ci waaye loolu. waaw loolu jaaxaluñu lu tax jaaxaluñu mooy que ni ñun fii lañu dëkk fii lañu ñu yaroo fii la ñu juddoo ba noppi fii lañu sant ay titre foncier lañ fi nekk yaakaar nañ ñun ñu dëkk fii. en même temps dëkk ci koñ bi ñëpp xam ñu ñu xam ñu ci social xam ñu ci njàmbaar xam ñu it ci ànd ak nit ñi soo xoolee ci manifestation yi ci daayira yi nga xool ci football bi ci sport bi man mii di wax ak yow nekk naa président ASC fii ci Grand Thiès pendant des années jël fii li nga xam moom laa fi jël di fi nekk leneen ak leneen dañ ñoo xam moo tax ci biir xam bi tey jii soo xoolee li fi nekk tey jii ci ay nit pourquoi dañoo ñëw wuyu si ma ci li nga xam ni moom laa doon def benn manifestation di ko def ci manifestation boobu tey ji ci laa jël ànd kook samay doole ak dooley xale yi yaakaar naa ni tey ji lépp loo xam ni yaakaar naa ko pour bëgg ko fii ci Grand Thiès pour am ko fi ak ndombo tànk bu mu mën a doon man war naa ko fi mën a am lu tax mooy que ni ñun dañoo dund social avant que yenn situation yi di ñu dab wala yenn